ci li war a doon avenir u Sénégal ëllëgu Sénégal parce que nag Sénégal dafa bokk ci réew yu ñu jàpp ni ñooy yi gëna a ndóol ci àdduna réew yu amul dara nee nañu ndóol gi bëri na fi ndaw ñi amuñu xëy nit ñi mën nañoo faju njàng mi yàqu na foo laal rek métti na waaw suñu toogee ba réew mu mel noonu yàlla wërsëg lañu lu toll nii ñu war a xam ni nag réew yu ko am tey mu defar seen réew ci diir bu gàtt gis ngeen Qatar gis ngeen euh, Dubaï gis ngeen Norvège gis ngeen Suède keneen ak keneen ñi ko am mu defar leen ci diir bu gàtt dañoo am seen fulla ak seen fayda bi ñu ko amee fexe nañ ba alal googu dañ koo téye seen loxo nun nag ma yégal leen tey ni Macky Sall ak ay ñoñam li ñu def xañ nañu senegaal alal googu ba tey bu ñu ko commencé exploité 2022. mille nga xam ne première exploitation bi si lay commencé Sénégal daanaka so jëlee fi nga xamné ne ci la réew di gagner moy li wax partage de production moy euh, luñu ñu ci euh, ci ci pétrole rek lan la ci Sénégal di am ak lan la ci euh, sociétés investir di am ak so génnee ci benen biñuy gagner moy gagné wax impôt gi l'impôt gi té légui rek.

ñu génne document yi parce que livre bi ma bind nga xam ne ñaari ci gannaaw wax naa ko ci démontré naa ko ci ni Sénégal contrat yi ni mu mel bu dee ni lañu doxalee mbir mi Sénégal du am dara ci mbir mi waaw contrat yi wutewul sax dara ak contrat wu phosphate bi lan la Sénégal am ci phosphate wutewul ak contrat wu or bi lan la Sénégal am ci or bi dara ñu ngi fiy génne des milliers de tonnes door amuñu ci tous loolu yëpp nag yablu gi suñu dirigeants yi yablu ak business ni ñuy defee business ñoom ci mbir mi parce que bu leen kenn gëmloo nag ni ki tëju ci biroom ministre bu tëju ci biroom di signé tubaab bi ñuy si bi muy signé da koo signé ndax waa ji daf koo neex rek lu ñu signé rek am na lu làqu ci suuf alal gi ñuy dajale di ko politiquer dem di jënd ay militant nangam nangam lu ñu signé rek am na lu ne ci suuf seen intérêt bopp la jiital ci intérêt senegal ba mu ma daj ñu ne nag wax ji ferenkulaay na. wax ji dafa frenkulaay bu yàgg amatul lu ñu fiy démontrer wala fiy prouver càcc gu leer moo am Sénégal gu leer guñ dul werante te moom Macky mi ñi nekk ci mbirum sàcc mi yépp moom moo leen njaboote foogoon nañ ni ku wax nga jóg duural ko sosal ko saaga ko ñun juróomi at yi lan la ñu déggul ci senegal lu ne dégg nañ ko lu ne sosal nañ ñu façon sos bu ne dem nañ ba ne ay société xamatuloo oil moo ne suñu gannaaw ab journal bu mag génne ko fii def ko tiit ay kàcci neen ngeen jéggal ma ci terme lépp diversion rek waaye gis nga lu dul dëgg du yàgg de te tay ji nak deug feñ na feñ na depuis le début sax mais légui dafa né fang ñu né nak wax ji dafa lér nañ la ca dess moy lan lañu wara def ñun sénégalais lañuy essayer naxé nit ñi procureur jog na néna day def appel à témoin depuis quand lañuy def appel à témoin te né nañ crime amul xana kay bala nga nan suñu né ah fat nañu ab nit waye gisunu kan moko fat ñu ne est-ce que amna ku fekkee mbir lolou loolu la appel à témoin mais yéen weddi ngeen ba ne dara amul loy woote témoin on témoigne par rapport à quoi yoy ñi essayer ëlëbalee Sénégalais yi caaxaan yi ñuy caaxaan di jaarale du melni institution judiciaire jaarale ko ci procureur nga xam mom du procureur de la république procureur Macky Sall la dégg ko keroog sax ma def parenthèse mu nan Euh, Pastef moo ko saisir waaye du du du du du du du Ousmane Sonko xam nga dafa am loo xam ne bu amee firnde bu leer nañ dafa jarut a wax parce que lettre baa ngi nii lettre bi moom defe naa werante munu cee am lettre bi ñu bind procureur mi ngi nii su ngeen xoolee signature bi Ousmane Sonko mu fi nekk naa leen ci jox copie yéen ñëpp ngeen yóbbaale IGE mi ngi nii procureur a ngi nii te wax dara du ci dëgg ndax. Si soo le dossier 94 milliards mu assemblée nationale comme avez une procédure C'est caaxaan yooyu ñuy def damay xaar ba assemblée nationale pareil. règlement intérieur de l'Assemblée nationale article 48 48 dafa procédure procureur moo ëpp les procédure assemblée le procureur la procédure l'Assemblée nationale arrête la procédure Je ma saisir depuis 2017 lettre baa assemblée nationale

wax affaire pétrole dama leen ne gis nga combat de bu amee ñaari lutteurs yi wala seen seen seen manager noonu la ñuy wax li ñu xaatim signé ko su dee combat bi dans huit mois la combat ba li ñu signé woon ci contrat bi mooy atte combat ba kon li Macky Sall signé tey loolu mooy atte saa suñu commencé génne pétrole bi naka lañ koy séddalee diggante Sénégal ak ñëw ñi ñu jóge bitim réew kon jamono ji lañ ci war a wax fexé ba wëlwati mbir yi ba mu nekk ci euh, euh, mu gëna avantage Sénégal par rapport ak ñoñu joggé bitim réew nee nañu ñun ñi di wax dañoo bëgg taal réew mi xam nga Sénégal dafa am lu fi am moy sa su wax joté rek nga gis ñu yëkëti secteur bu nekk ñu yëkkati si ay nit nak ñi naan ay médiateurs sociaux lañu ñi naan ay régulateurs lañu ñi naan ñu né waaw Sénégal jamm lañu xam nañu dox jamm nañu kenn mo bëgg taal rew mi mooy Macky Sall ñun ñi ko xamne yow Sénégal nga dëkk ben nationalité nga am moy sénégalais euh, ben kër nga am fi Sénégal sa njabot yëp Sénégal la ne say doom di fi jàngé ngay faju ci hôpital public koku su rew mi takké fo jëm mais loolu ñu am nak ci Sénégal moo tax kenn waru ñoo gëna bëgg Sénégal ndax ñun gëm nañ ni la am bitim rew ba suñu doomi ak suñu rakki di jël gal di dem. mën nañ ko am Sénégal ci diir gu gàtt suñu amee fulla ci suñu bopp waaye tant que ñoo ngi am ay leaders yoo xam ne su waa bitim réew ñëwee ñu mel ni ku gis yàlla di kët këteeg gaawantu signé ak li ñu leen di jox ci suuf Sénégal du dem moo tax ñu ne lii xew nag bu ñu jàpp ni ci benn dossier boobu la yem li xew ci suñu pétrole bi yëpp suñu or beeg suñu zircon bi yëpp nii lañ ko gérer xeex bi ñu war a xeex. les sénégalais war ci am yeg yeg rawati parce que nous ndaw le problème bi du bitim de problème bi du immigré problème bi moy fi suñu rew yalla ñuko tanal ñu war ci am fierté bu ko neexon mu def ñu japonais wala américain wa yalla ñu tanal Sénégal te amul rew bu Sénégal suñu mission ñun le le Sénégal du fenen ñoñu ñoñu def ba faire sen rew

waruñ ñoo gën a bëgg seen réew mbir mi fii la mooy li ñu yàlla wërsëgale buñ ko delloosiwoon ci réew mi rek sénégalais bu ne gis ci boppam am ci lu mu suturloo te du tàllal loxo kenn loolu nag suñu ko benn groupe nit naree xaj moo xam Macky Sall tudd moo xam Aliou Sall tudd moo xam kenn ak keneen waruñu koo nangu kon ñu ngi woo sénégalais yëpp ñu jóg ñu ngi woo sénégalais yëpp Nous sommes ñi ngi sénégalais mais dans toutes les régions du Sénégal parce que les bi mun nañ ko ne la volonté populaire Moi, aw askan li mu bëgg askan yëpp ne mom lañu bëgg amul kenn ko xamné say alkaat mën nañu am su révolution yi di du am te état yoy ño ëpp doole état Sénégal ño leen ëpp policier ño leen ëpp militaire kon dafa jot ñu xam ni mbir mi du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Cheikh Tidiane Dièye du mbirum euh, Y'en a marre mbirum sénégalais la ku leen wax ni bu leen génn mbirum politicien la ak ku munti doon noonu Sénégal la bëggul Sénégal ñu ngi leen di woo ngeen génn ci ay rassemblement pacifique ñu xeex xeex bi benn yoon. mbir mi yamul ci Macky Sall nee naa Macky Sall li def haute trahison la bu doon réew mi dañoo am yenn disposition ci suñu constitution dañ ko waroon wàcce jébbal ko atté kat parce que limu def biñ ko falé dafa waat ci constitution né moom waat na ni dina dina dina saytu loi bi waaye dina ko saytulu moo ko njëkk a joggati kon haute trahison la rakam nag lim naa léegi ci tubaab li mu dajale yépp ci ay infraction ak Aly Ngouille Ndiaye ak keneen ak keneen

dañ ko sacc ci ci peuple sénégalais jox ko ci ci anam goo xam ne du yoon comme yéen ay société yoo xam la dafa am ay ay yu bourse bourse New York ak Londres ngir yàlla bu leen dugg parce que tôt le tard dab lettre yaa ngi nii dinaa ko distribuer la presse comme ngeen xam li ñu def jaar ak ñoom moo tax plainte États-Unis déposé ko Angleterre waa Angleterre sax bi ñu tontu dañu comme Frank Timis australien la déposé leen aussi Australie département justice Amérique tontuñu ne ñu jot nañu mbir mi ma feddaliwaat ko man fii ambassade Amérique bi woo F ben wa FBI tok procureur tok ma ànd ak Birame Souleye Diop nga xamné mo top ci man ci parti ñu def une heure de temps d'entretien. ñu poser ñu question yu dul jeex ci li biñu ñu déposé ba nopi dañ leen ne déposé nañu ay plainte na ngeen xam ni ku ci jël loo lu dul yoon ci alalu Sénégal daan ko goxi parce que Sénégal du doon Congo Sénégal du doon Cameroun Sénégal du doon Gabon réew Afrique yooyu nga xam ne ñi ngi toog ci pétrole bu dul jeex ak or ak jama ba ci ay Zaïre te foofu la pauvreté gën a garaawe waaye Sénégal Qatar la ñu la bëgg mu doon wala Dubaï Émirats arabe wala Norvège mooy ñi am fulla ci seen bopp ba seen alal téel nañ ko seen bopp su dee nag tey daje ngeen nag ay jiit yoo xam ne amuñu fulla ci seen bopp jiitaluñu intere Sénégal xam leen ni ñooñu duñ fi sax dàkk moo tax mbir mi balaa mu doon neex rek balaa mu doon neex rek février 2019 bu yàlla defoon suñu mbébét ci réew mi sotti boobu ngeen doon xam nag fu mbir yi toll parce que di lépp waxatuñ ko ba tax nag ñun jàpp nañ ni. xeex bi xeexu sénégalais yi la ñu ngi leen di woo ngeen génn parce que nag bu leen kenn gëmloo ni c'est trop tard de c'est pas trop suñu alal mën nañ ci jotaat waaye day fekk ñu won ni ñun bëgg nañ ko buñ ko wonee rek yàlla jàppale ba fii léeg ñaar fukki fan yi di ñëw Sénégal wërsëg na fi baawaan ba kenn ku nekk ci ñun tubaab mooy toog fi mu ne toog naan nan la naka laay def ba émigré Sénégal waaye dootuñu nekk fii di jël ay gaal di dem Tay loolu moy l'enjeu te buñ ko sétané nak sàggane ko ba foog ni ma Massamba ak ba bu nit ñi démé ba xadi tok seen kërit dinañu di nga gis ponkal bu fi bëcc ak mbir kam te do am kula kula kula kula kula kula kula naxtan ku lañu bëggon waxtaan ci lu gatt ak yeen den wax nak ni Sénégal nak fiñ jëm dina metti waxon nañ leen ko ma yokk ci benn élément ci actualité dégg ngeen tey ñuy wax ni carburant beeg ñoom seen dina yokku ceeb dina yokku diwlin dina yokku ataay dina yokku comme nee nañ Sénégal moom tant que ceeb beeg diwlin beeg ataay baa ngi fi la ci des alhamdulilah yëpp dina yokku parce que yorin gu ñaaw ak yorin gu sell di gi Macky Sall yore réew mi moo tax tey bor gi bëri na leb naa leba leb ci biti ak ci biir ba mënatul dem moo tax tey conjoncture bu facile bu yombaloon mbir yi ba prix baril pétrole bi gis nañ fi mu néwon woon mi ngi mi ngi monter té day gëna monter ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne am na fi moo tax Sénégal yëpp nañu préparé nag nañu xam ne mbir mi dina métti de dina saf ci kenn ku ne ci Sénégalais yi ci choix mauvais choix bi nga xam ne def nañ ko ci 2019 bi mais nag loolu moo war a andi ci Sénégalais yi. loolu moo war a yóbbee Sénégalais yi ñu xam ni am réew naxante du ko defar am réew kenn ku ne xam li mu xam toog jàpp ñàmburam banque ay yoo xam du ko defar te fii ñu dëgmal nii nag ñii jël ay initiative muy waa aar li ñu li ñu li ñu bokk ak keneen ak keneen dañ koo def en tant que citoyen sénégalais suñu wootee na bi génn suba woote nañu fii biir Ndakaaru ci région yi ak bitim réew na Sénégalais yëpp génn bis bu ñu mobiliser 500000 personnes fii place de l'Obélisque ak feneen fu munti doon Macky Sall dina xam ni nag sénégalais yi farlu nañ ci jël seen responsabilité te bu boobaa li ñu xaar ci moom mooy mu delloo alalu réew mi ci waa réew mi waaye ñi nga xam ne responsable nañ doore ko ci rakkam mu jébbal leen yoon dina ko def ci lu gaaw parce que Sénégal téléphone 00 221 33 898 53 09 77 506 85 74 78 123 86 56 adresse email @gmail.com